ngir ngeen di jot suñu vidéo nag foo leen toll ci biir réew mi wala bitim réew da ngeen di abonné fii ci Farokh TV ngir mën a jot mbooleem vidéo boo xam ne ngir mën a xam mbooleem loo xam ne dina xew fii ci biir réew mi wala bitim réew ay na daaru salaam saa yu biit jooy na weet na ay na ay na rabbi ay na omar maa fi saybin kaana lam yaroot way boobu la jëkkee teg ci teg ci yi sëñ bi sëñ bi way léegi moom ku yàlla yàlla moo ko xamaloon alajo ma ndaw booba nag moom fekk fekk jàngutoon xam-xam yi téere xam-xam yi moom jàngut ko jàng na alxuraan nag ca baayam ba yab ko mm-hmm. waaye moom jàngu doon téere xam-xam yi téere xam-xam yi sëñ bi da ko noonu mm-hmm. bal ci xool dara bu xam jotee da nga xam mm-hmm. moom it te mu gëmee sëñ bi ne sëriñ bi dee lu mu wax rek lu mu wax rek ca loola laa da ne ba ca fekk loolu moko moko moo mana mana bam dem bam demé bañ dem dem dem dem dem dem bam yag mm-hmm. bam ñibi bam ñibé suñ dëkk ñun ñun kër man la dëkk man kër Eliman kër fa la mbay baa sin dëkk la bayam dëkk bam fa ñibé man bama ko fekkee dalaloon na ma risaala te jàngutoon xam-xam ku jàngut xam-xam nak bo ba mëna jangal da da da dalal nit risala xam nga am na lu am na lu ñëw ci yow loolu mooy teg talu alajo ma ndaw du lu nit mën a waxtaanee. sëñ kon da lay jàngal risaala tàmbali loon na ma ko ah risaala ma dem ba ci ab diir ñu ba ko booba moom yaram moom dafa xaw a jagadi ma la ko toppatool ay mbiram da ko liggéeyal daal man ci loolu daa nekkoon loolu tax nag ba muy bëgg a faatu mu xooma ne ma kaay ma jox la li ma jëlee woon ci rajo man yaay xalifa su ma nga nag sa yaay topp suma kaw waaye yow la ci sa mun ne nii laa demee ak mbay baasi waaw ngir ngeen di jot suñu vidéo nag foo leen toll ci biir réew mi wala bitim réew da di abonné fii ci Farokh TV ngir mën a jot mbooleem vidéo boo xam ne mën a xam mbooleem loo xam ne dina xew fii ci biir réew mi bitim réew